te li ñu nemmeeku ci euh, euh, mu nekk secteur bu metti ndax dañu gis faatu yu bëri na trop. Ah. bu yàggul moo si mujj dégg nañ fu mu sa sañ jàlloo Milan foofu euh, Brésil bu yàggoo États-Unis la loolu tamit noo ko gisee. waaw faatu yi tamit jàmbaar lañu tey jii fi ma nekk nii di wax ak yow soo demee di nga xam ne jàmbaar lañu parce que dëkk Europe xam ngeen ne ni muy sedd lay tàngee imaginel faatu bu toog ci mbedd mi di liggéey du matin au pour lan. pour daan doole wut lu mu sutur la ak lu mu yoree njabootam faatu yi euh, xëy na dinañ leen am benn côté boo xam ne dinañ leen ci blâmer parce que xëy na ni ñuy toogee di liggéey c'est dans l'illégalité mais il faut les il faut saluer leur bravoure man ci ma jàpp ne ay jàmbaar aussi euh, le Euh, les, on a assisté à l'assassinat de monsieur Hassan Diallo en, euh, en Italie tout récemment c'est aux États-Unis foofu tamit euh, te ji euh, doy na waar quoi ni ñu leen di ni ñu leen di rayee noonu. waa xam nga Ndiaye ni ñu leen di rayee. waaw ni ñu leen di rayee c'est vrai que bari na dans le cas de l'Espagne on a que on a on peut on a calculé cinq décès à peu près entre deux mille en moins de six ou sept ans non mais xam nga décès itam li indi ñun. dañuy faral di wax ndogalu yàlla ba pare ndax ku nekk rek bu sas bu boo matlee rek fa mu la fekk rek la la jël donc loolu bu ñu ko jiitalee ñun ba pare ci ngëm-ngëm yàlla bi après xëy na nag ñi ci des euh, ñii dañuy wax des bavures policière ñii di wax lii ñii di wax lii ñu wax lii mais lu nekk en général am na kon am na circonstance am na lu koy causé mm. euh, li koy causé en général su fekkee ni seytaane daf ci lalu parce que le cas d'Italie xam nga koo xam ne xelam neexul nga romb ko di dem sa yoon mu jël sa bakkan kooku xam nga dañuy daal di wax ndogul yàlla parce que kooku jotewu leen dara su dee le cas d'Espagne par exemple le cas de Madrid ñoom Mambay ak ñoom Inseen Mambay xam ngeen ni peut-être euh, comme activité illégale bi ma lay wax dafa am tamit mais mu jógee gox ba gox ah, dem fekk il avait des problèmes euh, de santé yoo xam ne peut-être xamu ko woon ils ont essayé de jàpp ndogalu yàlla la mais nag bu fekkee ni tamit euh, suñu gouvernement ñu état yi mën nañu signer ay accords yoo xam ne des accords bilatéraux yoo xam ni xëy na dina tax waaw xëy na dina tax ba euh, kenn ku nekk euh, sa sa sa sa doomu réew ñun en général je parle particulièrement de ñun sénégalais bu ñu mënee am des accords bilatéraux yu tax ni ñun war nañu mën a jox suñu gëdd teg ñu fu ñu war a teg loolu tamit ce serait une solution. ok am na solo léegi lu wet bu mujj mooy ñoom bu ñu kii tamit léeg-léeg rapatriement ñun en tant que association. Euh, surtout le cas le cas de bi nga xam ne fa laa nekk ñun en général bu ñu amee euh, ku fa wàññeeku euh, barewul lu ñuy xaar état pour mu yóbbu ko. man par exemple gox gi ma nekk bokk na ci exemple gox goo xam ne c'est à saluer en Europe Tenerife gi ma nekk les îles mmh. ñun Canaries yàlla dafa def ni bu fa nit wàññeekoo ndigal gi ñuy jëkk joxe bi waa daayira di jëkk joxe mooy kenn ku nekk li nga am te denc ko te di ci suturlu da nga ci génne 30 euros nga teg ko ci taabal ji ñun yàlla dogal na ni ñun bu ñu amee euh, nit koo xam ne wàññeeku na bu fa toogee xaalis tëyiwu ko fa les problèmes de papier moo ko fay tëye en général parce que ñun îles Canaries on est plus proche de l'Afrique que de Madrid donc su fekkee dañu war a xaar ñu yónnee suñu këyit ba Madrid pour Madrid signel ñu euh, jox ñu la dépouille moo autorisation de laisser passer mortuaire bi pour dellu si waat si ñun ñun en général buy tardé loolu la koy tardé mais xaalis tardé lu ko mais vraiment en général dans l' en Espagne ci boppam nit dina wàññeekoo Valence par exemple ñu yónnee waa yi information wala note jox leen numéro compte leen kenn ku nekk loo cay barkelu lañ ko ci barkelu mais vraiment ñun problème xaalis en général tey suñu neew. merci euh, maa ngi leen di gërëm vraiment ci seet bi ngeen ma seet si tey ci fii di wax li may faral di wax rek man je suis euh, une actrice euh, directe de l'immigration clandestine et j'ai bi de dire que vraiment problème bi mi ngi xaw a yëngatuwaat na ci autorités yi jógaat nu mu gën a gaawee bokk géej gi ba tax xale yu bare ñëwatuñu mais euh, dafa mel ni xale yi ñu ngi jógaat di dem te jóg di dem bi li koy li ko li koy li ko junj bokk na ci wala li ko indi bokk na ci inactivité li ma lay wax. xale yi ils sont gis naa ne ñoom ñëpp a ngi ci mbedd yi toog defuñu dara donc nañ leen jéem a seetal lu ñu def. suñu paree ci loolu ñu jéem a ubbi des def des ateliers de sensibilisation te bu ñuy def atelier de sensibilisation yi j'ai toujours dit que nañu jël les acteurs directs de l'immigration c'est vrai un expert peut parler de l'immigration clandestine mais ki nga xam ne moo koy dund tous les jours kooku c'est un acteur direct boo xam ne su fekkee ne moom mën na euh, def euh, charla bi comme on dit cest di que mën na def euh, oration wala mën na waxtaan ak xale yi loolu yëpp su fekkee ni mën na nekk je crois que ce solution pour un peu freiner l'immigration clandestine. Madame Awa Euh, jàppoo bu nekk ci Tenerife nekk foofee euh, tamit vice présidente bu coordination association bi ëmb doomi Sénégal yi nekk euh, ca fële ci Canaries ñu jàpp xame leen Kazak ñoom it ak nekkit membre ci comité directoire bu nga xam nag moom moo di fédération bi ëmb doomu kuréeli sénégalais yi nekk foofu di association sénégalaise yi di fekk baax di yeewoo jamono ji ci réew Espagne ñu gën a xam ci FAOS mu nekkoon suñu gan ci émission entretien di émission ni ma koy waxee di daw ci internet bi youtube ak yëpp bokk na ci tamit wàllum actualité politique économique lépp loo xam ne moo soxal réew mi ak doomu réew mi euh, ci lañuy yëngu kon fii la ñuy tàggandoo ak yéen di fa